jàllale tamit ki nga xam ne mooy yaay ji yaay ji jamono ji am na ay gaañu-gaañu journal bi nee ñaari seexam yooyu jamono ji ñoo ngi hôpital waaye nag gars yi nee nañu kii nga xam ne moo bëggoon rey ñaari seexam yi ak yaayam àndul ak xelam bii moo nekk ñaareelu yoon boo xam ne bëgg na ko def journal bi di Vox Populi bàyyi mbir moomee wax ci lu jëm ci wàllum dem bi ak dikk bi maanaam transport bi jamono ji kuréel yi nga xam ne ñoo ëmb wàllu woowu dañoo te amul lenn loo xam ne maanaam daan na ko siy jëfee grève bi tey jii la ak suba yéen kaay gii di la sa xëy dañu xibaar naan ñu njombe yi nga xam ne moom la ñuy faral di def ci internet bi loolee la état bu Sénégal bëgg lijjantee am na ab commission boo xam ne Ismaïla Madior Fall moo ko jiite jamono ji gars yi ñoo ngi liggéey ci texte ya yéen kaay gii di Sud Quotidien xëy na ci lancement officiel liggéey yi nga xam ne jëm na ci pont bu Rosso njiitu réew mi di Macky Sall ak Gazawani bu Mauritanie teg nañu xeer wu njëkk wi yéen kaay gii di réew di Quotidien nee na Barthélémy Diaz tey ji lay wuy ji ci procès appel la nga xam ne moo jëm ci mbiri Ndiaga Diouf yéene kaay gi di Vox Populi nee na Barthélémy su ko neexee nag mën naa def ko témoigné yéene kaay gi di Le Quotidien xëy diñu xibaar naan ñu violence politique bi jamono ji ñi nekk ci pouvoir bi ak ñi nekk ci ku jigi ñoom ñëpp la yéene kaay gi di L'Observateur nee na coowul Miss Sénégal bi nga xam ne doon ngeen ko dégg jamono ji nag enquête ba daan nañu koy ubbi yéene kaay gi di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa Birahim nag daal leen di amnistie waaye nag njiitu mi Macky Sall comme ubbi woon na fi nga xam ne mooy kër yi jamono ji nag maanaam war naa leeral Sénégal yi ndax askanu Sénégal mérité nañ considération ak respect yéen gi ba tey moom Birahim Seck nee na rapport bu inspection générale d'État bi nga xam ne jëmale woon na ko ci Petro-Tim loolee tamit war nañu koo leerala yéen gi du l'Observateur nee na njiitu réew mi di président Macky dafa bëgg nag isolé xam ne mooy Ousmane Sonko yéen kaay gi di réew mi quotidien ci xëlim gisee Karim Wade ak gis na ne ba mu leen éliminé dafa daal di sos nag ki nga xam ne maanaam mooy ab mostra ab njuuma boo xam ne Ousmane Sonko la tudd maanaam daal di koy sonal loola ab dualité am ñoom ñaar ci seen diggante te Macky Sall nag avant muy faluwaat 2019 waxoon na ne bu falo dina jéem a amnistie Karim Wade ak Khalifa Sall waaye nag ba léegi dara amu ca waaye nag jamono ji daal Macky Sall nag ngir nag mu muslu ci Ousmane Sonko il faut mu amnistie Karim Wade ak Khalifa Sall su ko defee Karim a Khalifa ak Ousmane Sonko ñuy concurrencer si seen biir su ko defee nak mu wàññi bu baax a baax laylaam bu Ousmane Sonko loole nag xalaatu Assane Samb la ma ngi ci yéen a kaay gii di réew mi quotidien yéen a kaay gii di Walf Fadjri xëy ñu xibaar naan ñu Macky Sall jamono ji nag mooy maître du jeu ñi nga xam ne nag ñooy waa PDS lu jëm ci wàllum amnistie Karim Wade maanaam dañ ne pata pataaral ci mbir mi ñi nga xam ne nag ñoo bokk ci taxawu Sénégal ànd ak Khalifa Sall ñoom yooyu ñu yàbbi ci mbir moomee yéen a kaay gii di Esat xëy dañu xibaar naan ñu Ismaïla Sarr jamono ji dafa blessé dina toog lu toll ci benn weer boo xam ne du dugg ci terrain bi journal bi nag nee na est-ce que kan Cameroun Ismaïla